ku ñàkk ah. ki ñaan nga ndax mënoon nga koo denc donc maa ngi ni ziar bu baax Camara Mbaye Céline Tine ba ci awa moom ngay wax awa ah. boobu ba ci monsieur Sarr Amérique ñi euh, monsieur Sarr Mali waaw noonu di rakk ci coon sekk waaw di rakk ci coon ah, sekk di xaritam aussi maa ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan te mënuñoo lim tur yëpp yëpp Boubacar Boubacar tamit ku la sopp la France la Boubacar borom France maa ngi leen ziar yéen ñëpp mm. partout fu ngeen mën a nekk di ñu bàyyi xel xam nañ ne émission bi di ngeen koy bàyyi xel di ñu topp saa su nekk loolu nag cant ak ngërëm mënuñu ko cee weesu waaye suñu amoon lu ko raw wallaahi lazim danañ leen ko defal waaye lii ngeen ñu defal rëy na lool topp ñu ba noppi itam di ñu di ñu di ñu di ñu yëg loolu rek am na solo donc tey euh, toppukaa bi dañ koy def spécial jagleel ko ci li nga xam ne moom moo di euh, rivalité bi dox ci diggante Wally Ballago Seck ak Sidi Diop comme ni ko nit ñi di waxee ah comme ni ko nit ñi di waxee puisque xëy na ñoom ci seen biir. am na loo xam ne euh, duñ ko sax def xalaatuñ ko ci seen biir ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo ko seq waaye nit ñi ak nit ñi ci seen bopp xëy na am na yu bare bari yoo xam ne dañ ko seq maa ngi ziar bu baax Serigne Mara Niass hmm, muy kilifa goo xam ne xam ngeen ko ci réew mi ñu ngi koy ziar bu baax noonu di ñu nuyu donc nag euh, topp kaa noonu lay demee saa su nekk dañuy waxtaan ci diggante siiri Diop ak Wally sekk ah ñaari dio yi nga xam ne def nañ ko Wally moo njëkk def moom ak Viviane tuddee ko Regine Thiès Regin Thiès bi ci biir YouTube bi boo demee ci euh, presque vingt quatre heures yi mu ci duggagum daanaka ma ngay bëgg laal un million de vues mu une première fois fii ci Sénégal quand même nañ ko nañ ko nañ ko nangu d'abord une première fois artiste dugal vidéom ci YouTube laalagul euh, plus de vingt quatre heures maanaam amagul un jour yu teg. mu la muy bëgg a àgg un million de vues Wally mu ngi bëgg a atteindre objectif am ci euh, côté boobu donc ñu ngi ko ci féliciter d'abord di féliciter Sidi Diop itam ci liggéey bu set bu rafet bi muy liggéey moom itam à travers ci ay sonwam ak ni muy liggéey parce que ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal mais danañ ci waxtaan quand kenn ku ci nekk génn ci sa xalaat d'abord ci sonwu Wally bi la ñuy dugg ma njëkk mhm. ci ndéygéey comme ndéygéey nee na nañuy nañuy jox jigéen ñi seen cër ah seen daraja ndéygéey seetaan nga clip bi ñu nga toogee fii keroog gis nga clip bi niñ ko ni ni ni mu ni mu mel ci côté réalisation décoration bi sañse bi bala ñoo ñëw ci taxi yi. yi nga xam ne moom la ñu wax. ci biir dinañ la fecc réegin tës ay. dinaa la fecc réegin tës. da fecc dinañ la fecc réegin tës ay. Euh, mu réegin tës ba ci kanam. ay réegin tës. daa ko bismillah mën ngaa réegin tës. non mais euh, euh c'est nice sawar nga man sama jëkkër mbër la su ma sawarul tooñ. yaa ngi teg ko ne bu ci yow la ñuy wax sawar nga loolu ban ah. façon wax la. bu ko ci dugal su ma sawar nga mbër mbër newu fi. yow yaa fi nekk ab fecckat nga waxaat. Euh, euh, Aliou. waaw. damaa kontaan lool sama xol dafa sedd. Mhm. barke Seydina Mohamed. Mhm. parce que boo ànd ak nit. muy évoluer da ngay sant yàlla. da ngay sant yàlla parce que doo réccu lu tax ngay ànd ak moom. comprendre nga. boo ànd ak nit muy évoluer. nga gis évaluation da ngay sant yàlla. clip bi moom rien à sama ñaari xarit yii. sama ñaari séddoo yii ñi nga xamante ni ñoo ma bëggal seen bopp ci réew mii. fonk ma teg ma place nawloo ma. bëgg ma def lu toll nii àdduna bépp apprécier ko c'est une fierté pour moi. d'accord barke Seydina Mohamed. ñaax na la daal. fierté bu rëy la ci man barke alxuraan xanaa xamoo Viviane moo njëkk tegal son bi. waaw ah, keroog xam naa ne déglu nga ko ma laaj la nga lànk bañ ma koo wax. Viviane moo ko njëkk tegal ci oto Oumy Ndiaye. d'accord mooy jour bi moo Dieng tuddee woon euh, Viviane euh, anniversaire am. te ñu ñëwoon fa ñu ne ñoom Oumou Viviane Viviane doon ko indil gâteau mhm. dama doon joxeel Viviane teraanga ànd mhm. jour boobu bi ñuy ñibbisi ci oto bi mhm. la ma ko Viviane di wax mën ne ko waa une ville loo may expliquer nii mu ne ma mag sa doomu ndey sa góor def nañ loo xam ne bu génnee ci réew mi mën ne ko kii ko mu laalal ma ci tuuti ma yuux damaa yuux damaa fëgg sama gémmiñ ci oto bi mais xam nga tamit loo xamante ni génn génnagul doo ko topp di wax di wax sama ndax man lu ma wax ma ko sama jëkkër sama jëkkër rek laa ko wax ni ko déglu naa démb loo xamante ni ci Viviane Wally Seck bu génn dëkk bi yëngu lii moom wax naa ko y'a trois mois ci ginnaaw xaw ma quatre mois d'accord barki Seydina Mohamed fierté la ci man dama ci kontaan dama kontaan man def naa ci ay challenge yu rafet mag sama waa kër hmm. teg sama kii di challenge di ko fecc bu jeexee ma teg beneen muy nii sam portable bu jeexee ma teg beneen bu jeexee ma tegaat tegaat fecc ñi dul fecc kat sax ay ñoom Petit Dieye ñoom Bamba Thiam Fatmata sama doom jinne bu ndaw dama ko ah. fecculoo ñëpp dama leen feccu kooku moom jinne la moom moom <laughs> moom yar na jinne joo xam ne jinne ju léeg-léeg yaay cat moo la jàpp cat waaw moom ba ku ko laaj sa yaay ko dal mu ne cat moo ko jàpp moom catu cat moom catu na cat fi mu <laughs> Fatmata yow catu nga cat ba cat dootul catu kenn moo xam ne c'est une fierté pour moi franchement fierté bu rëy la sama xol dafa sedd guy guy guy guy barke dinañ ñëw ci taxi bi. Mhm. mais avant gisee liggéey boobu clip ak ni mu mel. xam nga musique defe kenn mënu ko jàngalati Wally Seck. Mhm. parce que parce que weesu na taalibe. Mhm. wala bu tolloo si taalibe tardé. yaa ngi dégg parce que ki ko doon jàngal dem na. te boo gisee ndaw. ñu naan ko jàngal parce que ki lay jàngal dafa am temps bu xam ne bu fa tolloo dootu la mën a jàngal te bu fekkee taalibe ay taalibe wër la yaakaar la defe naa sa aliwo di nga ko wéer te wax ak ñoom si seeni aliwo bu la fekkul nga am xam-xam rek musiba dal la kon Wally dépassé na fu muy jàngee musique yaa ngi dégg Viviane moom kenn dootu ko jàngal musique wax dëgg te musique bi fi mu ñëw nii est xam nga musique bi dafa ñëw ci fooru Viviane waaw fi mu mënee. musique bi fi mu mënee la ñëw nii. Ah. xam nga musique chaque année day day day day tuxu di tuxu mais fi mu toog nii fi musique bi toog. Mhm. kooku fooru Viviane moo ko moom parce bi muy tëgg lii. booba vraiment kenn tëggagu ko. musique bi fi mu ñëw nii moom mun nay nelaw sax yow créer son quoi moom Viviane quoi. Euh, waaw euh, ah, copine kii yow déglu ma bu ñu tuddee Viviane ngay gi Viviane la dara fii nga ma may dix nangu ko may ma man lu ma la bëgg expliquer amoo leen loolu jox ko jox ko Viviane waaw ah, jëlal xam nga lu tax ah? dafa am euh, ndeysaan su ma ko fàtte mukk dama demoon tournée am ñu ma àndal fii Sénégal ñu dem Napoli boobu la soow Wally Seck bi di njëkk a génn ngéwél ngéwél xaw ma moo tax yàlla nit ki nanga wax rek mais bul xam yàlla lu muy faye nit ki Aliou est-ce que dégg nga li may bëgg a wax. bu baax a baax yow rek laa bàyyi wax ju yof dof nag yegg wax ju yegg dofu ko moom. waaw xel xel mooy jëli. keroog bi ñu wooyee ni ñu di toog ci óolu hôtel bi nii am am ku kii kii am ku indi daan doomu coon sekk bi mu ngi toj Sénégal. Mhm. am ko ne kii na jàngiwaat musique mënagul. barki Cheikhul Khadim. Hmm. ku weddi li may wax nga laaj Ibou Ndour. Hmm. a ngi toog. boo hmm. ko fàtte mukk. Ibou Ndour di reetaan. daan na ko pourtant il chante bien. loolu duma ko fàtte mukk. d'accord c'était en 2009 Napoli ba Pape Diouf a ngi ci néegam tëdd di nelaw ci jotaay bi ñu toogoon ñu noonu ci suuf. am na ko jox kii daal ne mu kii mënagul musique na jàngiwaat waaye ba ci kanam. sama xel dafa kii day nettal rek sama xel dem ci loolu kii day wax papa musique rek sama xel dem ci wax jooju. Hmm. tey xoolal tey Ibou Ndour la mu waxoon dikk na. Ah, est-ce que dégg nga li ma wax. Ibou dafa am. Ah, oreille musicale Ibou Ndour wax ca mu waxoon dikk na tey laa wax. loolu du ma ko fàtte mukk c'était en 2009 Napoli ci ëllu hôtel bi. d'accord ça veut dire waxi borom xam-xam la. wax jooju dikk na tey. tey laa koy soog a ndax li kii wax sama kii dafa wax rek sama xel ne yar ci loolu. d'accord jamono boobu la waal di soo a génne son boobu. Hmm, d'accord. jëmboor yeggale. am na solo. li nga ci sànni am na solo loolu jar na jar nañu dugalal euh, ñaata. kii nañ ko dugalal cinq mille cinq cent après. man du ma laal cinq mille cinq cent maa ko mag. par wéetu. Euh, euh, Alioune soo paree ah. am na loo xamante ni ñu ngi waxtaan ay kaa mais am na lu gën a nekk kaa te gouvernement Sénégal war ko lijjanti ñu jàppale leen te yàlla rek tax. danañ ci ñëw yeggaleel ba pare. danañ ci ñëw bismillah. waaw lu may wax rek. xam nga kii da ngay wax mu dogaale la. moo ma neex. di wax waxu picc ah. moo ma neex. jigéen yaa ngi dégg jigéen la ma neex. di wax picc. moo mhm. ma ak Viviane nga ma laaj quoi. Mhm. ne ma dañoo def duo boo xam ni. dafa neex. Mm-hmm. mais yow xoola loolu bu ñooñu mu bu ñooñu bu ñu korosee day neex. ak ah, ñaari ndaanaan la daal. dafa demeewul noonu xam nga musique day day dem foo xam ni am na ñaar ñu xam ni saa boo déggee ñoom ñaar ñoo korosee day neex quoi teru sax wax. su ñu yuuxoo sax mu neex parce que Wally bi mu ñëwee daf laa njëkk a wan ni diwoo mën na ko xoolal li mu def ak ak Fata. waaw ngénte li ngénte li ah, rek ngay xool xam ni waali mii day way mhm. yaa ngi dégg ngénte li laa wax de mhm. waali li mu def ci ngénte li mhm. du ko defati fenn parce que mu ngi avancé non boobu ngénte li xam nga mbër mbër bu matee mbër te joxuñu ko combat bi mu soxla kum bëreel da lay fël rek nga tëdd ngénte li gis nga ngénte li ngénte li li mu fa yuuxu du ko yuuxuwaat fenn mais pour wax la ne Viviane kenn du ko jàngal musique Wally Seck aussi kenn mun kenn to tollootul fu ñu koy jàngalee musique parce que boo demee bañ ne la yow la yow la munootoo randu te bu fekkul nga mu nekk yow rek musiba dal la yaa ngi dégg. Mm-hmm. léegi nag damay wax ni Wally Seck chaque jour ma wax ko quoi est-ce que xam nga dama koy bantuwaat. Mm-hmm. est-ce que xam nga musique bi muy musique ba léegi roi di mbalax mi ngi doog a am. ndax loolu. non ñu doon wax roi di mbalax yépp nee ma diw mii roi di mbalax la ma ne la ma ma limal la. ma tegal la ne la bu bu ku fi mës a nekk roi. doo ko tegale at bii di ñëw nga jël ko at bële di ñëw nga jël ko musul am. mais Wally taxaw. xoola Thione Seck léegi jàppal Thione Seck. Thione Seck. Omar Pène. Omar Pène Baaba Maal Ismaël Lô. Baaba Maal Baaba Maal. Youssou Ndour Youssou Ndour. waaw xoola Youssou Ndour ah euh, Youssou Ndour. waaw waaw téyel ñooñu. waaw téyel Alaaji Fay. yaa ngi dégg Alaaji Fay téyel Ousin Ndiaye. léegi xoola ñu waxtaan xoola dafa am benn année boo xam ni a ah, yuusu nduur ak euh, Alaaji Fay ñoo bokkoon orchestre mhm. Alaaji Fay Youssou nduur di di bokk ak moom orchestre Alaaji Fay te musique gu Sénégal bi mhm. boobu ana Youssou mi ngi fi kon roi bi Alaaji Fay la woon am na année boo xam ne nii tamit yuusu Ndour Youssou nduur ci boppam dafa téye musique gu Sénégal bi ñu dem ci beneen at am na at boo xam ni Ousseyn Ndiaye bi mu génnee Baye Waly dafa téye musique gu pour wax la ne roi bi kenn mosu si yàgg est ce xam nga Aliou Mbaye Nder mii dem na bay xatal Youssou Ndour dóor na fii ci Gorée Youssou Ndour di dóor fii dakaar ñëpp jéggi jël salop bi dem si mbay ndeer Nder soo jamono soo jamono. soo jamono dem na bay xatal Youssou Ndour léegi nag ki bu njëkk ba kii da daan dóor kii dóor si wetam. léegi waali rek mooy dóor te kenn du dóorandoo ak moom parce que boo paree dóor rek nit yi dañ lay wax ne boo dóoree doo feesle kon roi di mbalax mi ngi doog yaa ngi dégg liñ koy ñaanal yàlla nag xam nga lan la mhm. fi mu nekk nii yàlla na ko yàlla jàppale yàlla dimbale ko fi mu bëgg yóbbu musique bi mu yóbbu ko fa mhm. wax dëgg yàlla mhm. duo bi rafet na trop yaa ngi dégg cassette yi rafet na trop yaa ngi dégg loolu lañ doon ñaan ci moom loolu lañ doon xaar ci moom yàlla na ko yàlla defal jàmm mu ko waaw voilà ki ci régie bi laa doon wax ne ko buy buy waxtu ci sama nopp yi nay gaaw pour que may mën a bàyyi xel ci yow. yaa ma baral ah. non ah. moom moom laa doon def nii. pour ne ah. ko li muy moom mu ngi doon wax yow yaa ngi doon wax. te moom dafa yéex ci li muy wax. ma ne ko mm-hmm. nag gaaw comme ça ma lay mm-hmm. bàyyi. non see que xam nga sànq dañuy jàpp di wax. Mm-hmm. chaque jour wax naa ko. ni Wally Seck Sidi Diop Wally Seck di Diop. yaa ngi dégg. am na mbër yoo xam ne si làmb ji. coow moo leen boole mais du combat. chaque jour da ngay gis kenn dëkk benn mbër mu leeral la comme Papa Boy Djiné dafa dëkk Gris Gris doo mhm. mais Papa Boy Djiné bu dëkkee Gris Bordeaux mhm. mun mais du ko coowal làmb boole na leen mais du ko combat am na wala amul il faut mu xaar quoi parce que tamit Wally Seck su kenn koo xam fii ku xam ni waa ñime na Wally Seck dóor mu dóor si wetu Wally kal la amul de est-ce que Sidi ñi mën nay dóor fii keneen ku dul waal yi nga ñëw dóor si wetu Sidi Diop doo ko def de doo fees li gars yi bu ñu gisul waal yi si Sidi la ñuy dem bu ñu gisul Sidi keneen ku ke dem si keneen mais musique bi tey dafa kole ci benn affaire ba pare xam nga clash ci musique am na mais clash dafa am yoon xanaa am la su ma lay clash nii man même émission ak yi may def nii sama vidéo am na lu xam ni soo ko deful ma bëgg la kaa nit ñi dañ may jéppi effectivement waxa rek tey su ma la doon classe am loo xam ne defoo ko ma bëgg la ma bëgg la kaa def loo mhm. bu yàggee nit ñi ñoo la cay tooñ la ñuy dindi ba mu set. Mhm. parce que day feeñ. d'accord man damay toog ba gis nit def loo warta def ma gis ni lii kat day yàq diine day yàq leen ma mhm. jóg attaqué la yaa ngi dégg. musique aussi clash xam nga lan la clash dafa am foo leen di daje. parce que xam nga coon sekk bi mu fi toogee ni woy bu diglewul xamlewul terewul yeetewul nekkul li woy ay naxaate la xoola si année boobu dafa defaraat musiciens yu bari laajal ku la neex. d'accord. Mhm. parce que waaw da ñu bëri dañoo defaru. si moom da daan jàngal musiciens yi nii parce que saa bu génnee kaset cassette bojo bojo yeeg cassette yu baax yeeg yépp kii yam message am da ko daan wane. d'accord waxa rek. d'accord parce que am na bu muy ab benn année bu muy génnee naan euh, diw a ngi nee di dem yàllaa koy def ci jàmm diw la ñuy teeru tey yàllaa ngi def yàllaa koy def ci jàmm hmm. diw a ngi nee di dem boo gis nee ko mas sa coono cest à dafa laa wax ne aar du biir day xëy wasin hmm, boo fekk toroxalu la aar du la teral dana la toroxal ba nga ni gisoo xëy cëpp yi bokk yi dugg ci artiste ci aar bi yépp ñoo indi coow li xëy cëpp aar danga koy da nga koy galleeru daa am fu ñu jaarul moo waaw bëri na ñuy wax ak kii Aliou Mbaye euh, kii Aliou est-ce que xam nga gor si waxatuñ. jedd nañ seen cër. ñu war a wax noppi nañ. ñu war a ñu war a way wayatuñ. ñun ñii rek yaa ngi dégg. dof yi ñooy nekk si plateau yi. di ngalli ngalli lu nekk ñu wax ko. et puis ñooñu sax ñu lay indil ak nooneel li ñuy def doo ko def. yow mii dangay wax da ngay présenter mais waatal ba xam léeg-léeg doo dégg kuy présenter sa fit rëcc. Mm-hmm. waxal parce que yow fi nga toog automatiquement ngay xam ni laaj dafa am norme. Mhm. dangay gis waa ji day dépaale day dépassé couloir bi ki muy laaj bu dee duggul fu ko arrangé moom mooy dem dugali ju ko fa. Mhm. effectivement. laaj yuy indi musiba laaj yuy indi coow affaire yooyu. waaw ku nekk yaa ma xoola borom xam-xam bu mag daana ko wax maa la gën le nee na maa la gën le nee na kenn du ci xeex. mais li nga yor baaxul nopp mën ne su koo dégg. waaw déedéet sama portable bi moo gën sa <laughs> mais danga may reetaan. mais Aliou li nga yor dara baaxu ci. doo ko nang. alaaji du ma ko nangul kenn waxal rek. déedéet mbay waxal en tout cas Wally Seck ak euh, Viviane daal affaire bi nice na. ñoom ñëpp war nañoo mën a diwoo. jël musique bi yéegal ko. Sidi Diop ak Viviane Sidi Diop ak Wally Seck dañoo bokkul fa nuy waye loolu loolu moom danañ ci ñëw. bokkuñu fi ñuy woyee. bokkuñu sax. mais Sidi itam am na beneen côté bi. Sidi dafa mën a woy pire ba xam nga loolu. loolu sax. keroog xam nga nee naa la Sidi Diop woyagul. waaw yaa ngi koy wax fii. bokkuñu fi ñuy woyee. te mu ngi wane ndànk-ndànk. mu amul mu ngi wane ndànk mu ngi wane. mais dafa bokkul. way yi ñoo bokkul. Sidi Diop ak Wally Seck bokkuñu fa ñuy woyee. danañ ñëw ci Sidi. dañ ñëw ci Sidi mais d'abord